des sélections 29 voilà. réalisations mm -hmm. en, euh, en, euh, en, euh, avec mm-hmm. Sénégal Oui, on l'appelait mmh. on, on l'appelait mmh. parce qu'il était prompt à marquer des buts et mmh. il est rentré dans la légende mm -hmm. avec euh, ce but euh, en or marqué contre la Suède euh, qui nous avait envoyé au paradis comme aujourd'hui on est on est au paradis du football. On va commenter tout à l'heure euh, ces images là de Henri Camara ak Marcel léegi dañ may wax ni Abdoulaye Mactar Diop mi ngi ci ligne bi Abdoulaye Mactar Diop nekkoon ministre des sports ñu ngi lay nuyu di la ziar. am mbégte di la dalal euh, on imagine aussi yow tamit mbégte bi nga am euh, ci euh, victoire bi nga xam ne Sénégal am na ko ci CAN bi muy guléet. ah oui wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax baax am mbégte moo xam ne amul fu mu yam ci kontaan ci Ali Aliou Cissé man foofu laay tàmbalee ndax xam nga su fekkoon ne keneen la teggi na tànkam wala mu wàcc loxoom. wan li nga xam ne moom la gëm te foofu la football bi tollu tey wane na ko parce que xam boo fekkee ne seetlu nga huitième de finale quart de finale demi finale bi finale am amuñu défaite te loolu naka jekk noonu la daan construire équipe nationale am kon moom nañ ko gërëm te bi ci des mooy tamit euh, joueurs yi wax dëgg yàlla wane nañu jom ju mat sëkk sëkk sëkk te man pour xale Sénégal yi jeune Sénégal sportif Sénégal yi vraiment kontaan naa lool parce que ñu ngi gis ñu yëngatu ci ci ci ci yi et li ñëpp ci bëgg seen waajur yi seen xarit yi ñëpp wax dëgg yàlla bon xam nañu man sportif la nga xam ne euh, moom lu mel ni di andil di andil dëkk bi et kon ñu ñëpp képp ko xam ne ki mas ngaa nekk ci sport yi tey jii sama xel ngi dem ci Alaaji Malick si suur yi parce que dañu bàyyi suñu xel na Alaaji Malick si suur yi et foog naa mooy bon équipe bi bu nekk président fédération finale au Mali moo yóbbu woon Séné équipe Sénégal coupe du monde fële euh, euh, en Asie bi ñëw quart de finale bon euh, bàyyi suñu xel tam ci ñi nga xam ne techniciens yi fi jaar yëpp ak anciens joueurs yi wante gis nga li nga xam ne moo ñu jaaxool maam équipe boo xam ne dafa am relève te gis nga Aliou Cissé ni mu ni mu conduire équipe nationale bi am na ci ay anciens joueurs am na ci naa bu fekkee ne may nañ ko mu liggéey te incha allah dañ ko may mu liggéey. du ñàkk coupe d'Afrique bu ñu nar a may ñu tollanti ko daal maa ngi félicité tam bu baax a baax Matar Ba parce que moom tam lu nekk daj na ko ci en tant que ministre di félicité le président la République parce que investissement yi mu def ci sport bi wax dëgg yàlla moom euh, moom yëpp moom moo moo moo daju ci lii di wax euh, supporters yi tam nañu nañu continuer jàpp rek parce que man li ma waxoon ci demi-finale bi waxoon naa ko ci yéen seen rajo RFM dama waxoon ne football ak Égypte final moo gënoon football ak Cameroun ndax gis nga ni stade bi meloon parce que comme Égypte moo gagné Cameroun Cameroun yëpp dañu faral Sénégalais yi léegi nag li ci des mooy ñu fexe ba téye équipe bi bu baax a baax ba parce que Coupe d'Afrique bii di ñëw incha allah Côte d'Ivoire dans dix-huit mois la xaw ma dix-sept mois ndax yàlla ma ñu tollantu ko man kontaan naa te yéen tam maa bu baax a baax daal di ngeen def duñu woo duñu laaj euh, suñu xalaat ami tamit beaucoup jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Mactar Diop sant la gërëm la bu baax a baax euh, di la ndokkale encore une fois ci kanam tuuti dinañ am suñu doyen Abdoulaye Diaw euh, Marcel euh, ñu bàyyi la nga commenté waat léegi rek image yu Henri Camara yi gis nga ko ndeysaan <laughs> génn na di jubilé. donc di en fait lañ deful woon ca daanaka moom lañ def. ci 2022 voilà mais 2002 c'est un petit peu dans la même veine que hmm. lu Malick Thiandoum wax c'est que.